Thank you. a été particulièrement et entièrement marqué par la pandémie du coronavirus. La maladie, en effet, a asphyxié l'année étranglant depuis son aube jusqu'à son crépuscule. Elle l'a noyé dans ses eaux profondes et troubles. Des quatre coins du globe, l'homme qui se croyait libéré des turpitudes de la vie a eu la surprise de sa vie. La mort, à un moment donné, a pris le contrôle des pulsions de la vie, celle-ci prise dans son propre siège. l'humanité entière endeuillée, secouée et même apeurée, des hommes peut-être peu nantis ont cédé face à la frayeur, un pan d'espoir s'est dissipé. Mais dans ce brouillard massif et agressif, d'autres hommes se sont distingués par leur capacité de résilience. Résilience non pas sur le plan personnel, mais au compte du collectif. Un homme de communauté qui a fait don de sa personne à son cercle de référence, ses origines et sa cité. Rien d'autre n'a d'importance à ses si ce n'est son semblable et les devenirs de sa contrée. Son destin est bâti dans l'esprit de groupe. ce qui fait de lui un homme adulé, engagé au service de la communauté avec une forte détermination à faire bouger les lignes du développement de son terroir. Grand manager, il est de surcroît le leader charismatique sur qui repose l'espérance de toute une cité. C'est ce fils de Médina que Dakar Midi a décidé d'honorer en lui attribuant le titre d'homme de l'année. En 2020, notre icône a été l'un des rares leaders politiques à continuer à entretenir populations de sa cité, que ce soit des vivres, des masques, du gel, des formations pour les jeunes, des financements pour les femmes et un accompagnement conséquent au secteur d'activité. L'homme de l'année 2020 de Dakar Midi a été sur tous les fronts. Oui, Pour lui, la résistance face à la pandémie devrait être menée comme à la guerre avec des moyens colossaux, des stratégies et un bon ciblage. C'est comme ça qu'il a fait bénéficier de son assistance et de son soutien à tous ses concitoyens sans exclusion. Il parle peu et travaille beaucoup. Ses actes de bienfaisance se comptent en des centaines. Il s'est ainsi forgé au fil du temps une grande renommée. S'ajoutent à cela ses qualités humaines incomparables et incontestables. Très humble et courtois, agréable et décent, il se fait toujours remarquer par son élégance mentale et sa densité intellectuelle. La Médina se vante de l'avoir comme fils, les Médinois se réjouissent et sont fiers qu'il soit un des leurs. Et toutes les villes du Sénégal aimeraient le voir porter leur titre de citoyen. Lui, l'homme de l'année de Dakar Midi, n'est personne d'autre que Cher Tidjane Ba. juumu leen le fait de choisir euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba directeur général de la CDC euh, caisse de dépôt et de consignation euh, nit la koo xamee ni nit ku ku baax la nit ku généreux nit ku jox nit Euh, noonu rek la mën a mel parce que en fait ci ni mu yaroo la koo xamee ni dafa yaroo kër euh, si keppaaru maam Abdoul Aziz Sy Dabakh euh, papaam doon wólëre ak sëñ Abdoul Aziz Sy ba tey ji yaayam moo yore daara daayira bi nga xamee ni lépp lu ñuy def foofu kër maam Abdoul Aziz Adja Kodou Fall yaayam moo koy gérer. ku ma laaj ci moom ma sawar lool sax muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu nekk koo xamante ne mu ngi dëkk Medina juddoo Medina yaroo Medina bokk ci soqeekoo ci pami pël nekk noble macha allah nekk jàmbaar ku dimbali waa Medina. bu ngeen ma interpellé laaj ma ci. ku ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba dama ci sawar a wax vraiment donc je pense que vous avez fait un bon casting et vous avez aussi pris d'accord la personne idéale pour nommer ko homme de l'année. Cheikh Ba mérito parce que lépp li nga xamante ne nit ku baax mi ngi koy def ci réew mi kenn du ko ci jiitu. papaam ak waajuram bu jigéen daal xam naa leen ndax papaam El Hadj Atoumane Ba. suñu moroomu way jur fi ñu nekkee tout tànk di ñëw ci jàkk yi dañ fi daan fekk ak ñoom pap mu nekkoon fii adjoint à l'imam daan na sax jiite pap Cheikh Ba euh, way juram bu jigéen di Adja Codé Fall moom tamit ku ñu xam la une femme très généreuse très battante Cheikh Ahmed Tidiane Ba c'est mon jeune frère ñun ñëpp ñu juddoondoo Médina dëkk Jekko mu yàgg di œuvrer si social pendant plusieurs années depuis qu'il était étudiant. social bu njëkkee comprendre que ca ca ca ca limité wu ko fenn daf ko yaatal si Médina bi yëpp comme am na ñoo xamante ne sax nekkuñu Médina mais dañ koy woo di ko sollicité mu leen di jàppale ñoo xamante ni dañuy am ay problème social ay cas sociaux lañu man man gis am xam na am naa si lu leer man lu ma leer mu leen di jàppale ñooñu da leen tuddee hors hors zone la leen tuddee parce que ñooñu xam nga gis nañ ko muy def ay affaire yu rafet si Médina bi xam nga fii nit nopp amul kubéer gars yi dañuy nettalante ñoom tey dañuy ñëw sollicité ko di ko dañu la bëgg a jàppale affaire moom tuddee leen hors zone. Euh, dina def chaque année mu choisir des les meilleurs élèves du du quartier euh, defal leen ay ay ay cadeaux defal leen ay offre leen beaucoup de choses d'autres gosses yi nga xam ne aussi ils une formation aussi qui n'est pas terminée ñoom tamit dana leen encadré ñu def seen euh, améliorer formation ba mën a am ci lu ñu jàpp te yëpp gis nañ ensuite pour les personnes âgées que nous sommes euh, bu koor jotee dinañu jàppale ci ay ceeb suukar des vivres en tout cas ensuite Tabaski pareil ak ah, bu ñëw daal dina ci dina si Covid 19 bi Cheikh tax si def lu am solo parce que bi son excellence monsieur Macky Sall président de la république joxe des consignes claires nettes et précis Cheikh fekk na moom mu jotoon jël matuwaayam ñaax ay nitam ñu leen Covid 19 mi ngi ñëw mais nañ leen préparé wu jël suñu matuwaay yàlla def Covid 19 bi muy ñëw ak moom li mu am loolu doyul. ndax autorité am na fooy toll da am li ngay am say nit di la dimbali sa est ñi nga nekkal aussi bokk ak ñoom mouvement ñuy def effort ndax organiser woon nañ fi sax une collecte de fonds ñu bëri fii si ñun joxe nañu Cheikh joxe le maximum ñu jël ko di accompagner nit ñi dem nañu si district de santé yi dem nañu police dem nañu si école yi dem nañu partout fu nekk dem nañ fa joxe des denrées et des produits ak xaalis la preuve l'immeuble bi nekk à la rue 23 angle 4 bi nga xam dafa amoon plus de cent personnes yi amoon feebar bi ñu ngi leen confiné woon à l'hôtel FIFA foofu dem nañ fa yóbbu fa camion denrée ak produit ñi nekkoon à la rue 9 angle 12 ñu confiné leen au Novotel dem nañ fa jox leen une somme d'argent une somme importante sans compter ñi nga xam ne seen kër yi la ñu nekkoon ñu confiné leen fa dem nañ fa yóbbu leen ay produits yóbbu leen kon Cheikh bàyyiwul kenn. daara yi seen bopp wër nañu daara yi jox leen produit jox leen euh, denrée jox leen xaalis jox leen lu nekk Cheikh daal moom mi ngi si lépp daal. dañu gis barka démb ay doomu Médina nekk fii biir Médina dëkk ci kaw nale doon nekkoon ay mool ñu dem ba Guinée équatoriale yàlla dogal ñu am fa ay problème des fa pendant presque un an ay quelque amuñu sax wax dëgg yàlla li nga xam ne ni di dundu des situations très précaires amuñu sax li nga xam ne nii xam nga ñu nekk fa am ay problème mënuñu ñëwoon ñibbis ba mu yëgee loolu je pense que si ëllëg sa la yónnee ñooñu donc ay transport pour ñu mën a ñëwaat ci seeni ay mbokk. li ñu seetlu nag ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba ma waxaat ko doomu Médina la mais rek du doomu Médina parce que temps yee dama liiroon benn livre boo xam ne bii benn journaliste bu tudd Abdoul Majid Sène moo ko bindoon seet ay sénégalais yu bari yoo xam ne yii. ci at yu mujj yi am lu bari lu am solo lu am maanaa lu ñu def Sénégal livre am boobu boo demee seet ko di ci gis photo Cheikh Ba. li mu yor ñëpp xaj nañ ci Medina yëpp xaj nañ ci Cheikh mu koy bokk ñun macha allah. man dama koy tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Ba social ndax suñu leader di Cheikh Ahmed ba mu dalee di def social boobu lii xewul. nu daan def tous les ans euh, ay euh, kii sociaux ay acte de social. dama daan dem fu ne laay dem man sama tànk bi socialu Cheikh di ma fekk fu ne su ma laajee lii ku koy indi ñu ne ki koy indi bu sax ku tudd turam des années ba ma découvrir ni que c'est Cheikh. élection présidentielle yi nga ñëw ci réussite bi jàpp Malick si lu mësul am Sénégal moo fa am ndax euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. moo wootee jàppale président Macky Sall loolu mësula am fii ci biir Médina grâce à Cheikh Ahmed Tidiane Ba te loolu yëpp li ko ko may mooy dimbali gi muy dimbali askan wi di ko dimbali doomu aadama yi te nekkul dara loo xamante ne da koy tricher mun lépp lu muy def rek lu dëggu la ci moom ndaxte nit ku baax la nit ku sincère la. waaye dañoo jóg gis muy def lu baax ñu xool ci moom di roy lu baax di def lu baax di ko jàppale di ko jàppale ba fu loxo mënul yegg ñun suñu loxo dem fa fu mu mënul dem. teg fa suñu tànk doo àdduma lépp lu ngay gis jeex ci sa yaatee yàlla na la ko yàlla defal lépp loo bëgg ci Medina yàlla na la ko yàlla defal yow mosoo bëgg politique mosoo bëgg politique waaye Macky Sall moo tax nga dugg ci politique bëgg Medina moo tax nga dugg ci politique bëgg waa Medina ndax yow mënoon ngaa toog ci sa ruq yaag say yaag sa yaag sa famille petite famille di di di di di def li nga war def ak sa famille waaye dangaa bëgg waa Medina bëgg leen xale yi am jom liggéey bëgg changer Medina bëgg defar Medina moo la waral dugg ci politique bi lépp looy jeex ci biir Medina nag yàlla na la ko yàlla def sa biir famille kontaan nañ ñëpp kontaan nañ frère sœur cousin cousine ñëpp kontaan nañ ci yow koo bàyyi kenn Cheikh léegi koo bàyyi kenn. ñu ñaanal sa di di di di di di gërëm sa jabar ñu nga xam mu sa ginnaaw jàppale la ak say doom ñu jàppale la ñëpp topp sa ginnaaw jàppale la Cheikh yaa baax. je pense que mu nekk une personne spéciale ma remercier d'ailleurs donc euh, site bii di Dakar Midi donc euh, vous avez bien choisi euh, l'homme de ne bi nga xam ne nii def ngeen ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu leen ci ñu leen ci gërëm aussi di leen ci sant parce que vraiment vous avez jugé juste. n'est-ce pas parce que moom tamit mérité na lu ëpp loolu te incha allahu rabi waa Médina aujourd'hui am nañu sympathème bëgg nañ ko dañ koy ñaanal rek fi mu nekk pour liggéeyal Sénégal yàlla gën ko ci dooleel yàlla may ko vraiment doole bu mu mën a yeggalee mission am. kon donc ñun ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla li mu bëgg moom moo ko xam si kaw si kii si xolam yàlla na ko yàlla defal. voilà donc euh, c'est un euh, exception la ci Diecko modèle la. parce que loolu muy def ñi ñi fi nekkoon avant lui li ñu ko doon def dana baax trop ñi fi nekk ak moom tamit jamono jii nga xam ne mu ngi koy def bu bu jàppoon fii ñi jàpp fii day gën a baax kon yooyu yëpp c'est des raisons qui font que vraiment seen choix bi vous avez choisi l'homme qu'il faut au dafa bëgg Medina trop nag Medina gënal ko lu ne nee naa leen woon gis nga si Ahmed Tidiane mii su ko Medina fay yàlla ci boppam moo koy fay. parce que li mu def ci Medina kenn mësu ko fee def ah bari nañu responsable de kenn na mësu ko fee def amul loolu amul Cheikh am na fulla Cheikh am na fayda Cheikh du waxantu Cheikh du gaaruwaate nit ku diine gi noonu tabarkaale macha allah nit ku mu bëgg na xale yi ci boppam Cheikh bëggul xale bi yu xëy rek toog dinaan attaaya rek di tox cigarette déedéet newu leen nit kaay leen ma embauché leen ngeen may raxasal ak di leen ma di leen fay daf leen bëgg a defal ay formation xale yi liggéey ba ëllëg si biir ku la may nga may sa bopp ku la mayul nga defal sa bopp te kat seer defalutul boppam ñun lay defaral ndax su suñuy doom baaxee ñun ñii lay baaxal ëllëg waaw bon dat ñu mën a def lu dul jàppale Cheikh Ahmed Tidiane euh, lu mu ñu jalal nañu ko jàll man day Cheikh mooy sama l'homme de l'année de tout sax nag ko kenn yamalewu ko kenn dañ koy ñaanal yàlla defal ko si jàmm ak sutura ak xéewal parce que am na lu bëri lu mu changé Médina vraiment am na lu bëri lu mu fi changé ñun de personnellement lépp lu muy def daf ñu si boole ñun handicapé yi merewuñ ko moom vraiment merewuñ ko lépp lu muy def dinañ woo téléphone wala soit ñi nga xamante ne tax nañ si moom Cheikh dafa nekk xale boo xam ne dafa bëgg yaay bëgg papa papaam ñaanal ko yaayam ñaanal ko magam ñaanal ko famille am ñaanal ko